waykat yee mën am yaakaar jàmmi réew mi mbokk yi asalaamaaleykum euh, mbégte la ñuy àndal euh, sa su jot euh, di feggoog yéen àllarba bu jot bu vingt 28h jotee ci Walf TV ngir jagleel leen seen émission bile di Selebe Yoon Selebe Yoon ni ma koy waxee. day càmbar lépp loo xamante ne rek dafa yemook actualité ay bés bi askan wi ñu ci bëri nag am lu ci lënt seen xel bëgg ñu leen ci euh, gindi ñu ciy feggoo saa su jot ak ñoo xamante ne seen xam-xam day màcc jëmale ca fànn googu tey ñu am mbégte euh, dalal ki nga xamante ne moom moo di honorable Amadou euh, Gallo Ndiaye fare ci parti démocratique sénégalais nekk responsable PDS fële ca diwaanu Louga ak ki nga xamante ne moom moo di Abdou Aziz Seck di responsable APR ca diwaanu Tëngéej coordonnateur au mouvement patriotique sénégalais pour euh, l'émergence ñuy euh, suñuy gan tey ci plateau bi nga xamante ne moom moo di célébé euh, yoon du ma def lu dul bàyyi samay invité ñu nuyoo ba noppi ñu doog a sóobu ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan wi Amadou Gallo kàddu gàngo waaw donc asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokku téléspectateurs yi maa ngi nuyu tout d'abord tamit kilifa kër gi muy Serigne Sidi Lamine Niass di suma xarit vraiment nekk nit ku nga xam ni liggéey bu rafet a rafet moom la nekk di liggéey ci réew mi alors euh, maa ngi nuyu mbokku Sénégal yëpp particulièrement les responsables et les militants du parti démocratique sénégalais ci nuyoo boobu nag danaa ci beral loxo suñu candidat la frère Karim may Wade defe naa nekkul ci réew mi mais bi may ñëw ñi muy àndal woo naa leen xamal ko xamal leen ni leen dañ ma invité célébé yoon nañ ma ko woowal pour waxal ma ko ni ko na ma seetaan te xam naa ni mi ngi jàkkaarloo ak ñun kon monsieur le candidat maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm. jërëjëf euh, Amadou euh, Gallo Ndiaye ñu bàyyi Abdou Aziz euh, Seck mu nuyoog askan wi. jërëjëf maa ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan tey ci Walfadjri di nuyu le président du groupe Walfadjri Serigne Sidy Lamine Niass di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci bitim réew ak diaspora bi ñoom ñëpp di nuyu tout le département de Rufisque di nuyu l'ensemble des militants de la l'APR di leen ñaanal at mi ñuy génn mu nekk atum jàmm nekk at mu mu ànd ak naataange ak euh, lépp lu nga xam ne nit yéene ko ci lu baax bëgg ko yàlla na ko yàlla defal di ñaan aussi émission bi yàlla def si muy émission bu mucc ayib ba nga xam ne sénégalais yi koy seetaan euh, dinañ am mbégte di seeta continuer di seetaan émission bu mel nii Sélé Eh, jërëjëf eh, Abdou Aziz eh, Seck kon di responsable APR fële ca diwaanub Tëngéej ñu def lu dul soobu ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan bi ponk bu njëkk gi xamante ne moom la ñuy yëkkati mu jëm ci li nga xamante ne moom moo di emploi des jeunes ndax gis nañu démb ndaw Tëngéej ndaw Fatick yi kon di manifester li nga xamante ne moom moo di ñàkkum xëy gu tar gi nga xamante ne moom la ñuy teel te naam kii di njiitu réew mi daf leen digoon ay xëy mu mel ni fànn boobu ndax duñu mënuñu jàpp ne lajj am nañ ci suñ demee ba nga xamante ne fa la njiitu réew mi soqeekoo nekkoon fëpp euh, kilifa tey mu jiite réew mi ay euh, ndawam génn di manifester manifester gu mag ngir euh, jooytu ñàkkum xëy googu Amadou Gallo. waaw soxna Awa xam nga bu ñuy waxtaan rek vraiment waxtaan wax dëgg ci la defe naa Fatick li fa xew fan yi gàcce mënul weesu loolu man bu ma doon président Macky Sall tey damay dem ma tëju suma biir nekk man dong. ma jaaxaan suma diggu lal ma waxtaan ak suma bopp ma xalaat lu bare bare xam ni vraiment lii gàcce la parce que moom Fatick la jóge te xale yi daf ci am ku nga xam ni bi ma koy seetaan man dama xaw jooy parce que ñoom nee nañu dañu amoon confiance vraiment ci Macky Sall bi ñu koy fal dañ ko wóolu woon lool bi ñu koy fal malheureusement ñu dem ba fal ko Macky Sall mu wëlwatiku di leen seetaan mel na ñoom amuñu dara dara dara dara dara luñ ko apporteel ci victoire boobu te soxna Awa en même temps bi coow loolu di am à Fatick en même temps le ministre Makhtar Ba Makhtar Ba je sais pas man xaw ma turu ministre wu Macky Sall yi mais je pense bien que Makhtar Ba la tudd le ministre des sports en même temps ma nga nekk Fatick di distribuer de l'argent di séddale xaalis bu fekkee ni yéen dangeen ngeen seetaan télévision gis nga ko ci télé bi tey walla démb muy wax naan Fatick xaalis bi mu fi séddale ci jeunes yi ci nawetaan wóor na ko ni ko amul fenn fenn fenn fu mu am ci réew mi lii du samay kàddu Maxtaar Ba moom moo ko wax damay jottali rek donc moom nee li mu séddale ci xaalis ci Fatick ci ci fan yii nii maanaam ci moment bi jeunes yooyu di kaas ci la doon séddale xaalis bi donc moom nee na li mu séddale ci xaalis amul kenn kenn kenn kenn ci Sénégal nee na ku nga xam ni moom def na lu mel noonu mais ça c'est grave ça c'est grave au même moment ñii wa ngi na fi ñii wa ngi nekk fële di wax au même moment ñu dégg benn député je pense c'est une certaine Fatou Diouf moom elle a dit carrément que mu ni Fatick am na vingt trois personnes yu nga xam ni yor nañu ay ndombo tànk maanaam ay DG ay ministre ay xawma lan ak lan boo ko calculer vingt trois personnes lañu moom Fatou Diouf mu wax ni coow li yépp mooy ñooñu liggéeyaluñu Sénégal seen poche la ñuy liggéeyal loolu moo indi lii xew Fatick tey donc lii nii kon lii xew Fatick nii c'est grave et pourtant le président Macky Sall dafa promettre woon Sénégalais yi mu ne leen bu ma faloo je vais créer plus de 500 000 emplois mais malheureusement tey li ñu gis mooy usines yi ñu ngi tëj man dëkk ba ma dëkk muy Louga usine ba ñu gënoon am yaakaar El Hadji Djili Mbaye defoon ko fa muy Sotexka ñu daan ñëw ay yére di koy yóbbu à l'étranger man mi ca usine boobu laa ne woon tey tëj na. tëj na depuis des années et des années actuellement gouvernement bi xëy na moo ko waroon a redresser mais le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne refuse de redresser l'usine lon moo xew xamuñu donc kon vraiment li xew Fatick loolu gàcce la li ñu bëgg mooy suñu mbokk yi ñoom ñu waxtaan ak seen kilifa président bu fekkee day nelaw ñoom ñu yee ko bokk Euh, ah euh, Abdou Aziz ñu interpellé ci ponk boobu euh, mu mel ni Fatick dafa doon rek foo xamante ne nattukaay la woon mais suñu mun nañoo jàpp ne li ni mel law na ci Sénégal gi yëpp ndaw yi ñu ci yi ñu ngi jukko di kaas li nga xamante ne moom moo di ñàkkum xëy gi lu tax baromètre bi di Fatick mooy fi nga xamante ne fa la njiitu réew mi soqeekoo kon nu ñu ko waxee ay kilifa yu bëri faree ci APR itam Euh, Fatick la ñu soqeekoo te am ay ndombol tànk suñu seetaanee nag ba ndaw yooyu sax amuñu xëy kon c'est l'ensemble du Sénégal yeneen ndaw yi itam ñu ngay euh, chômer ci waxtu gi nga xamante ne njiitu réew mi dafa amoon diggé gu mu defoon am yaakaar goo xamante ne xale yi amoon nañ ko ci moom mu mel ne yaakaar googu tey dafa yàqeeku waaw xam nga euh, maa ngi am mbégte di tontu ci li nga xam ne moom nga wax ni parce que en fait su ma déggee moo co-débatteur monsieur mu ni mu développé euh, c'est-à-dire damay da ngay gis ne maanaam du loo xam ne lii dañ koo teg ci ay jàngat yu wóor pour mën a wax ne Sénégal fii lañ toll lii lañ def mais tey bu ñu jëlee Fatick en fait parce que ça aussi c'est une stratégie dire que Fatick c'est le pays c'est enfin c'est le maanaam daal mooy dëkkuwaayu njiitu réew mi mais Fatick du Sénégal Sénégal am réew la moo xam ne mi dëkk yi yëpp dañ ci bokk président Macky Sall ci ni mu yore réew mi jëlul ne Fatick laa dëkk damay prioriser la jeunesse de Fatick wala en tout cas ñi dëkk Fatick pour jox leen li nga xam ne moom lañ ma dénk ma jox leen ba nga xam ne ñoom xëñ na duñu wax dara dinañ am lépp mais bu boobaa ñeneen ñi duñu am donc c'est quelqu'un boo xam ne bi euh, gis na ne am réew bu ñu ko yoree da ko war a yor ci ci équité ci fànn boobu bu ngeen seetloo ministre yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci cadre ndaw ñi euh, ministre bi nga xam ne moom la dénk wàllu ndaw ñi ak emploi bu ngeen xoolee ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ci fànn boobu liggéey nag affaire chômage dafa nekk loo xam ne cest à du problème boo xam ne bii dafa spécifique ci Sénégal je vous parle même dans le monde d'aller dans les pays les plus développés dañu confronté ak un problème du chômage parce que aujourd'hui quoi qu'on puisse dire il y a une crise euh, je peux dire une crise mondiale bu nga xam ne les pays même développés en souffrent terriblement seeni jeunes ñoom aussi ils ont des difficultés pour jël leen kon aujourd'hui le président Macky Sall mu ngi teg ay mécanismes yoo xam ne yi pour permettre jeunes yi ñu am liggéey pour permettre jeunes yi ñu def ay projets pour permettre jeunes yi ñu def ay projet yoo xam ne dina leen permettre ñu mën si sukkandiku jàpp si liggéey parce que en fait ñu certes peut-être utal kenn ku ne un emploi salarié jë Sénégal jeunes yëpp c'est impossible mais il va falloir que ñu teg. ay mécanismes yu permettre jeunes yi mën a jaar ci loolu pour liggéey. et je crois que ni ci fànn boobu ci loolu la président Macky Sall la nekk. mais est-ce que tey mënuñu leen woon kon euh, tenir benn langage de vérité moo gën a digg bi xamal leen ne dinaa leen jox euh, temps d'emploi te li ñuy wax euh, lu tax ñu natt ko ci Fatick Fatick du Sénégal rek mais dafa mel ni dafa law ci Sénégal baromètre bi lu tax ñu tànn ko ci Fatick dañ naan kuy wàlliyaani sa dëkk tëggul. waaw xam nga en fait kuy wàlliyaan sa dëkk tëggul c'est vrai. mais du ne dañu dañu dañu dañu comment dirais-je dañu jël jeunesse su Fatick rek jël emploi yeeg yëpp yóbbu ko fa comme ni ma la wax sànq mais en fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui bu ñu waxalee dëgg xam nañ ne le président Macky Sall quand il promettait aux jeunes emploi yi effectivement ci dañ ci comment dañ ci attelé wu di ci dox di ci liggéey ay service am di ci liggéey pour permettre jeunes ñu am liggéey permettre jeunes yi ñu former ay ay projet pour éventuellement mën ci liggéey ñu ngi def ay dak ay DAC communautaire pour nit ñi jeunes yi di ci liggéey ay projet yoo xam ne yi xaalis yi dañ ko mobiliser teg ko pour permettre ces jeunes là ñu dem il faut que ñu organiser wu à travers des projets pour ñu financer leen ñu liggéey xam nga dafa am loo xam ne lii moo moo mooy la difficulté majeure c'est-à-dire tey mënuñu jël kenn ku ne ñu jox la un emploi ne la ne la emploi nga kaay dugg sa bureau ngi nii non mais dañu bëgg a former jeunes yi à travers des projets ñu mën a liggéey di gagner dignement seen seen seen seen seen existence seen i salaire en fait loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk te franchement parler loolu mooy dëgg et quand j'entends mon frère dire que moom il connaît même pas les ministres du gouvernement xamu leen mais ça c'est c'est c'est pour man à mon niveau je pense que ça c'est un manque de patriotisme parce que les ministres de supposé comme ni ma ko waxee les ministres de Macky Sall c'est pas les ministres de Macky Sall c'est des ministres de la République Sénégal Par conséquent, nous leur devons respect et considération par rapport ak li nga xam ne moom lañ leen dénk je ne dis pas que les gens ne doivent pas critiquer les gens ne doivent pas dire les choses telles lu doxul dañ ko war a wax lu dox dañ ko war a wax mais il un minimum de respect et de considération vis-à-vis de la nation sénégalaise parce qu'en fait le gouvernement supposé Macky Sall dont vous parlez c'est le gouvernement du Sénégal et nous ah. leur devons respect et considération ah, ah. Euh, Amadou Gallo ci politique indi tey euh, ndaw yooyu tey mënuñu jotee ci xëy gi euh, mënuñu jotee tey ci financement bi tàggat googu itam ñuy wax euh, am na foo xamante ne ma ngi fay soxe non xam nga politique de l'emploi bi ngay wax man sérieusement man gisuma fi lu bees lu bokkul ak li fi Ablaye Wade indi woon à partir de 2000. man ah, gisuma fii Macky dafa dindi agence yi. Euh, waaw Abdoulaye Wade sampoon. waaw créé yeneen kuréel yu yees euh, lu ci mel ne ay FONGIP ak yu ni mel pour euh, suqali ndaw yi. si seen waaw loolu lépp xëy na tur wi mooy xaw a wuute. mais boo xoolee ci biir le document presque benn lay doon donc loolu amul différence bu am solo donc man dama jàpp ni le vrai problème le vrai problème mooy nguur gi pratiquement ñi ci nekk dañu xamul. fi nga xam ni foofu la ñuy taxawee le vrai problème mooy dañu mënul toog xalaat et loolu li ko waral nag c'est parce que ils ont un gouvernement incompétent dirigé par un premier ministre incompétent donc loolu bu fekkee ni lu mel noonu nga am vraiment politique de l'emploi bu am solo bu ñuy wax nga xam ni dañuy créer ay emploi duñ ko mën a am fii ci biir réew mi donc kon luñ la mënti wax loolu mooy le vrai problème ñoom xamuñu dara xalaatuñu dara jànguñu dara lenn dong la ñu xam mooy nu ñuy séddale xaalis point final la visite de Macky Sall en France defe naa yéen ñëpp dégg ngeen ko yéen yéen a ko titré tey sax hôtel ba ñu fa ne hôtel ba ñu newoon lu ñaaw la ñu fa doon def di fa saagante ndax xaalis bu ñu fa nekkoon di séddale hein donc ñoom vraiment sérieusement parler lenn rek la ñu xam lenn dong la ñu jàngal la leen jàngal mooy nan la ñuy yàqee xaalis nan la ñuy joxe xaalis xamuñu leneen. non mais je pense donc, il euh, euh, nguur euh, ak lu ñu kii kii am na nañu des hommes yoo xamante ne c'est des fonctionnaires yoo xamante ne li mel ñoom ñu ngi ciy liggéey am na ay mécanisme yu ñu teg yoo xamante ne pour li ni mel donc moom moo ko tax a jóg. waaw d'accord xam nga ils ont des fonctionnaires am na ñu nga xam ni. ci biir gouvernement bi am na ci ñu nga xam ni li ñuy def xam nañ ko li ñuy def jàng nañ ko mais xam nga malheureusement bu fekkee ni kay kay cheikh ba te nekk ca kaw maanaam le président Macky Sall ak le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne mais bu fekkee ni ñoom ñaar xamuñu dara mais kon même même ministre yi nekk ci biir dañ leen di sonal parce que dañuy dem xalaat ba sonn liggéey ba sonn bu nu ñëwee li ñuy indi dañ koy teg fële à côté donc c'est ça le problème kon problème mu emploi c'est impossible mënuñu ko résoudre xëy na nag ñoom loolu la ñu wax sénégalais yi loolu la ñu gëmloo jeunes yi ba tax jeunes yi fal leen ñu yor réew mi tey mais malheureusement loolu barki alquranu karim laa wax Ablaye Wade lu mu fi deful jamais de la vie ñoom duñ ko def xalaatuñu def loolu d'ailleurs ñoom fexe nañ ba ba jël réew mi mais xoolal billaahi yi liñ doon campagne yëpp xalaatuñ ko def ab Wade li liñ fi def beneen doomu aadama gis nga Ablaye Wade yàlla borom bi moo ko wàcce woon ci Sénégal jeex na takk dootu fi amati. Euh, xëy na nag doomam Karim Wade. xëy na Karim Wade dana ñëw dana remplacer dinañ ñëw euh, ci point boobu Abdou Aziz euh, tey est-ce que gouvernement bi naam 4 euh, ans mi ngi déroulé li nga xamante ne moom moo di politique de l'emploi boobu ndax am na benn moment boo xamante ne dina ci amal ab taxaw seetlu jël un peu de recul pour xool li nga xamante ne moom la ñu teg ndax mi ngi jur wala jurul ndax yaakaar naa ne soo bëggee natt foofu ngay xoolee pour mën ko cop indiwaat ay coppiteeg yi ni mel. waaw xam nga man am réew. suñ ci nekkee tamit di waxan di wax lu nga xam ne lu yanu maanaal daf ciy baax xam nga tey bala may ñëw sa question bu ñuy accuser le gouvernement de Macky gouvernement boo xam ne dañuy yàq gouvernement boo xam ne dañuy jël xaalis di pasar pasare cest à bu dee koo xam ne kii dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo yoroon réew mi ba jóge fi muy le gouvernement de de de du PDS ñoom ñoom seen bopp bu dee ñoom ñooy wax di joxe ay leçons de morale par rapport ak nu ñuy yore réew mi ci wàllu nu ñuy defaree xaalis man man damay tikke pour la bonne et simple raison que sénégalais yaa ngi ñuy déglu fii lu nga xam ne amu fi ci bi ngeen nekkee au pouvoir yéen bu dee bu dee bu dee détournement de xaalis jo jël xaalis jël alalu réew mi pratiquement loolu mun nañu wax ne yéen champion ngeen ci affaire corruption yéen lañ fi jël yéen yéen lañ fi gis ah, ngeen jël ay mallette ay mallette euh, l'affaire Segura mi ngi nii ah loolu barki démb la yàggul ah je crois que c'était vous kon yéen waru leen waru ci affaire wu xaalis nu nuy doxalee ci réew mi ci bonne gouvernance ci yoreen wu rafet yoreen wu sell je crois que yéen vous êtes hors mm-hmm. kon waru leen sax jéem a dugg ci point boobu di am lu ngeen ci beneen bi mooy wax ne le président Macky Sall bu nga amee un gouvernement compétent franchement mooy le gouvernement du président Macky Sall avec à sa tête euh, le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui est un ministre un premier ministre discipliné correct qui fait un travail sans tambour ni trompette mais il fait un excellent travail yéen bi ngeen fiy jógee yéen a ngi fi bàyyi économie boo xam ne bii maanaam moribond ay taux de croissance su quasi 1,5 pour cent ah. aujourd'hui nous sommes à 6 voire 7 pour cent kon réew mi ñu ngi koy téye ci anam bu mu gën a rafete ku mu mën nga wax mën nga jaaxaat di wax ne gisuma jant bi loolu moom kenn mënu ci dara mhm. Eh, ci côté emploi bi nag ndax am na benn rétrospective boo xamante ne kilifa yi ñu ngi koy def toog année bu déroulé comme que temps d' emploi la ñu waxoon par année mënut a sotti ñu xool fan la mbir yi di sooxee pour ñu mën a rectifier le tir ndax yaakaar naa ne ci diirub ñeenti at quand même ku ci doon euh, jàng dox sax fi mu nekk nii yaa ngay daw. waaw dëgg xam nga loolu euh, maa sukaaka ne réew mi aussi am na nu muy fonctionner euh, mécanisme yi nga xam ne moom la ñu war di teg pour pour saytu. Euh, loolu yëpp président ak gouvernement nu ngi ko teg nañ ko ay nit ñu ngi siy dox di ci liggéey ci wàllu emploi des jeunes euh, ministre bi nga xam ne moom lañ dénk en tout cas ndaw ñi ak emploi mu ngi si dox di si def ay jéego yu am solo yu mucc ayib gis nañ ko mu ngi daw guddi ak bëccëg di def di liggéey. di fexe kon fan la mbir yi di sooxee ba mënuñu mëtalee chiffre bi nga xamante ne joxoon nañ ko askan wi. xam nga xam nga aussi euh, am réew aussi. boo koy boo koy doxal da nga koy teg ci ay projection c'est-à-dire da ngay teg ci xalaat maanaam am une vision boo xam ne bi moo lay permettre nga dem ci kanam président Macky Sall ci cadre boobu la ñu tracé di xool nu nu war a def pour Sénégal fi mu toll nii en deux mille trente cinq nu war ko fa yóbbu c'est-à-dire loo xam ne lii peut-être xëñ na moom sax moment boobu xëñ ne dina fekk mu jeexal ay mandat mais kon ci wàllu politique de jeunesse li nga xam ne mu ngi koy def ci réew mi franchement parler c'est-à-dire mooy li ma wax sànq rek nit na mun nga toog jàkkaarloog jant bi ne gisuma dara. Mhm. mais ci wàllu liggéey ndaw ñi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def jéego yu am solo et au moment où je vous parle nee naa la mu ngi am ay ñu ngi demander li ma lay wax nii c'est du lu am la on demande même o collectivité aux di leen wax ne nañu nañ seen les les maires de ñu jàppale jeunes yi seen i projet ñu indi ko parce que ñu indi ay projet déposé ko pour les jeunes ñu financer leen parce que xaalis baa ngi fi pour pour loolu moo tax donc loolu pour wax ne kon fii collectivité locale yi nga xam ne jamono ji ñu ngi jànkoonte ak ay tolof tolof ndax acte 3 bi mais acte 3 bi c'est une bonne chose su su ñiy jànkonteel ay tolof tolof ndax mën nañoo dimbali ndaw yi financé leen jàng yan jàng nañ lañ jànkonte ay problème ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, les travailleurs des collectivités rek am na problème xam nga bu fekkente bu fekkee bëgg nga mën nañ ci waxa ah, parce que affaire collectivité locale yi parlons-en euh, affaire euh, décentralisation bi parlons-en mais loolu dafay wane ne président bi mu ñëwee xool réew mi xool li nga xam ne non loolu benn brèche la woon rek li nga ah. wax ne collectivité locale yi dañ leen wax ndaw yi nañu indi eh, kii collectivité locale yi Sénégal waxuma ne collectivité locale yëpp am nañu peut-être leur les moyens de leur politique du collectivité locale yëpp mais collectivité locale yi nga xam ne en tout cas am nañu bari ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ci fànn boobu en tout cas man bokk communauté commune ba nga xam ne fa bokk amuñu problème de paiement de salaire amuñu problème mu paiement de quoi que ce soit te ñu ngi def ay réalisation ñu ngi tabax ay école ñu ngi fay ay ay ay bourses d'études pour les étudiants à hauteur de quasi 142 millions une commune di ko fayal ses étudiants des des étudiants en master rek lu ne ñu ngi leen koy fayal ñu jàng kon pour vous dire que li ñuy jël en charge sax bokkul sax suñuy prérogative maanaam du suñuy compétence mais ñu ngi koy def pour jàppale askan bi kon bu ñuy wax ne comme communes yi ñu ngi liggéey d'accord euh, dinañ dinañ ñëwaat ci yeneen euh, point yi ñu euh, évoqué waat beneen point Amadou Gallo gis nañu démb ñi nga xamante ne ñoom ñoo di médecin yi itam jug nañu di ŋàññ ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuyoo turu médecin mbubboo ko te nekkuñu ci lenn taqewuñ ci lenn mu mel ni li nga xamante ne moom moo ko war a réguler tey jii machine bi sa grâce waaw xam nga problème mu médecin yooyu tamit dégg naa démb ak tey jii yëpp ñu ci wax mais je pense que loolu c'est facile à régler loolu yàgg nañ ko wax c'est facile à régler parce que ni ñu koy mën a régler mooy que le ministère de la santé jël ay responsabilités am parce que xam nga d'accord am na ci lu nga xam ni mën nañ ko régler à haut niveau mais af am na yu nga xam ni c'est des détails il y a des choses yu nga xam ni le ministre de tutelle moom rek je pense war na ko mën a régler te loolu c'est facile à régler parce que kuy médecin ku ñëw taxaw ci yow wax la médecin laa mais boo bëggee yow boo bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg da mën a vérifier kii li muy wax dëgg la wala du dëgg ku dul médecin tamit la même chose war nañu mën a vérifier ndax médecin la wala du médecin donc kon yaakaar naa ni am na yu nga xam ni mën na yàgg ci ñu nekk di gëstu mais am na yu nga xam ni soxlawul ñu ci attardé wu. mais yaakaar naa ne du malaat bi moom mooy ñëw taxaw di càmbar ne kii médecin la wala du médecin. waaw d'accord mais xam nga malaat bu feebaree man dama foog ni dama jàpp ni nit ki bu feebaree xëy na lu ci bari du moom mooy yóbbu boppam ca médecin ba xëy na avant loolu di ko dal daan na dégg que kii diw sàngam place sàngam. am na médecin bu fa ne te am na tamit ay ñu muy àndandool buy dem ci kooku donc kon loolu sérieusement man jàpp ma ni problème bu sérieux la man dama jàpp rek ni problème c'est un problème d'organisation et ça date de longtemps li ñuy li ñuy wax nii. mais non mais est-ce que état aussi du ci am benn part de responsabilité ndax dafa teg ay euh, ni ma ko waxee yoo xamante ne ay structure yoo xamante ne pour veiller ci yooyu kese la suñ demee tey ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ordre des médecins moo tënk médecins yépp tey ñoom ci seen bopp ñoom ñooy ñaaw ñaawlu li mel di ko joytu. waa xam nga état xam nga bu ma lay wax la ministère de la santé na jël ay responsabilités am ça veut dire kon état wax na jël ay responsabilités kon nag bu may wax waxu santé ministère de la santé comme état lay wa waxal kon état bi kon lu ci ñoom ñooy njàgg mais man Awa Diop man sérieusement lii nii comme li ma wax ça date pas d'aujourd'hui jamonoy Ablaye Wade amoon na fi jamonoy sengoor tamit amoon na fi jamonoy ñeneen tamit amoon na fi te du fii ci réew mi rek la tamit mais comme li ma wax rek dafa am yu nga xam ni man dama jàpp ni c'est des détails le ministre en tutelle bu bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lii mu dañ man je pense bien que incha allahu rabbi dana fi dana fi jóge. Abdou Aziz euh, euh, Amadou Gallo dafa ne euh, du problème bu mag mais yaakaar naa ne question de santé publique la itam doon na problème boo xamante ne askan wi ñu ngi koy jànkoonteel ndax tey koo xamante ne du un médecin véritable malade dem gis ko mun na koo jox tooke koo xamante ne mun na faat ba kanam tey ji lan moo war a doon taxawaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifay nguur suñu demee ba ñi nga xamante ne ñoo di ordre des médecins di décrier li ni mel. waaw am na en fait xam nga am na loo xam ne lii euh, bu amee euh, war nañ ko xool war nañ ko saytu euh, parce que loo xam ne lii jaaduwul lu jaaduwul la mais pour vous dire que le le gouvernement du Sénégal est en train de faire des efforts vraiment des des efforts incommensurables par rapport à la santé et ça ñu ngi gis jéego yi nga xam ne moom lañ ciy teg. ci liggéey bi nga xam ne ministre de la santé et de l'action sociale mu ngi koy liggéey ci Sénégal wax dëgg yàlla ku ne gis na ni elle fait un travail remarquable maintenant am na ay problèmes yoo xam ne nag effectivement su amee dinañ xool naka la ñuy def pour saytu ko Eh, buñ ko saytoo xool problème yi ñu réglé ko man je crois que ne loolu moom lu lu lu normal la e je crois que ne dinañ si jël matuwaay yi ñu war a jël yëpp pour régler yenn problème yi ma nga xam ne yenn dootul am parce que loolu aussi mooy mooy mooy mooy mooy mooy li war a nekk. Mm. dëkk nag aussi buy dem aussi fu mu mënti doon du ñàkk ay jafe-jafe yoo xam dina am mais nañ ko nañ ko identifier rek jéem a xool nag la ñuy def pour saafara ko. Euh, ñu avancé ñu leen di wax ne yéen a ngi seen émission Selebe Yoon na tey ñuy dalal Amadou Gallo Ndiaye bu parti démocratique sénégalais ak Abdou Aziz Seck bu alliance pour la république di APR ñu xuusandeek yéen ci waxtaan bi li nga xamante ne itam moom moo xew ay bés bi jëm ci njiitu réew mi tukki gi nga xamante ne def na ko ca réew tuga yi ca tukkee yëpp mu mel ni prolongation ba ñu ngi koy joué fii ci Ndakaaru ndax ay mbóot tàmbali naa génn si taxawaayu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa yi ca réew tugal googu ñu demoon mu mel ni yittey Sénégal taxu leen woon jukk ci suñu déggee ñenn ci askan wi liñ doon wax mu mel ni seen mbirum bopp moomu leen fa taxoon a jug mu mel ni itam dañoo demoon tay la li nga xamante ne moom moo di réewub Sénégal ci euh, tugal Amadou galo tey ci tënk rek euh, naka nga mën a jàngate euh, li ni mel. waaw xam nga lu voyage là dañu waxoon ni c'est une visite d'état. Mm-hmm. mais man foog naa ni. mag yi dafa demoon noppalu ku ji soit fête de Noël la jëloon wala daal dafa noppalu ku ji woon parce que le programme. mais kuy noppale ko di nga indi 2000 milliards. dama ni xaalis yooyu ñuy wax indi nañ ko xaalis yooyu doo ko gis jamais de la vie et puis wax indi naa xaalis c'est facile Awa Diop loolu yomb na ñëw rek indi naa xaalis j'ai amené de l'argent sans wan la ko loolu c'est facile comme comprendre nga li wax donc yooyu. man foog naa ni noppalu ko ji moo ko yóbbu woon wala mu demoon ay feetu Noël wala daal xaw ma lan la fa wala mu xawaare ji woon parce que am na sax journal bu titré loolu tey defe naa ni ay xawaare wala mu xawaare ji woon moom le programme de Macky Sall bi mu fa demee est-ce que yow xam nga ko mais mënoo ko wax exactement en tout cas man li ma ci dégg ñoom d'ailleurs bi ñuy dem da dañ njëkk ni une visite de cinq jours ba ci yàgg ñu ni il va faire quatre jours mais Radio France ils ont dit Macky Sall a fait trois jours en France alors mais trois quatre cinq yooyu yëpp amul solo li am solo mooy lan la fa def ak programme lan la woon programme am en tout cas man programme bi ma dégg man moo tax ma ni la visite bi kon xaw na ma jaaxal ndax xaalis lañ fa wuti woon wala visite de travail la woon wala visit d'état la woon kenn xamul visite lan la woon le premier jour ab concert moo fa amoon avec Youssou Ndour la nuit le premier jour ci guddi bi euh, bi ñuy dëkk ay Italie ay Belgique ay xaw ma fa ñëwee premier jour ba dañ jubali ca affaire Youssou Ndour ba alors la lendemain am na visite bu Macky Sall demoon ci benn mairie defe naa seetaan ngeen ko télévision beneen bis ñu wane ko déjeuner non waa benn déjeuner avec une mairie wane nañ ko. muy dîner avec le président Hollande wax nañ beneen jour dem na affaire train yu ñu commandé Astor xaw ma lan toor Amstrom Amstrom alors donc man loolu laa xamaa ah, ci visitu Macky sàll bi le concert ak hôtel ba ñu daloon doon may ay xaalis yu dul jeex donc voilà. Ah, comme am na njëriñ bu fekkee ne tey ji euh, signé na contrat goo xamante ne dinañ tabaxal tram. waaye dama ni. train bi ñuy wax ñu ne déet na waaye ñu signé waat ab accord ak Total. société train bi ñuy wax société biñ ko jox ci fayit la ne woon tey Sénégal à cause du président Macky Sall société boobu naroon tëj dana ubbiwaat tey ndax Sénégal alors ko fii ci Sénégal mais am nañ ci usines yu nga xam ni fayit nañu dañoo bëgg ku leen ubbi. te ñoom laaju ñu 500 milliards et quelques yi ñu leen jox ñoom mais fii am na usines yu nga xam ne ay moins de moins 2 milliards ñu ubbi leen à Louga chez moi Sotexka bi nekk foofu hein moins de 5 mën nañ ko tijji mais comme li ma la wax sànq le premier ministre refuse de payer les travailleurs il refuse de de de de, de l'usine comprendre nga donc kon ñoom. France lañ fa defi woon comme li ma wax rek amul solo la ñu indi tamit yomb na ñu ñëw naan indi nañu temps ci xaalis mais problème bi mooy nañu toog di seetaan ba heure bu ñuy gisee loolu. en tout cas man jàpp naa ni visite bii daal nekkul visite bu nga xam ni am na solo visite la bu nga xam ni suñu xaalisu réew moom la ñu yóbbu woon pour dem pasar pasaree ko pour dem yàqate ko te comme li ma wax sànq. yéen tey yéen seen journal sax tey ñoom ñoo titré lu ci bare bare ñoom ñoo ko bindal. Ah, Abdou Aziz euh, tey euh, tukkib njiitu réew mi indi na mbiicoog mbaaloo ci biir askanub euh, Sénégal kàddu yu bëri ñi ngi jip ñu bari suñ ko jàppee xawaare ñi jàpp ne suqali na koomu réew mi dina suqali koomu réew mi comme ni mu koy waxee on va vers l'émergence ca fànn boobu tey naka nga jàngatee li waaw xam nga njiit réew mi tukkeem bi nga xam ne moom la demoon def ko France. yaakaar naa ne amul lu ci lëndëm c'est-à-dire visite d'état bu leer la demoon def ko France am ay activités yu am solo yu nga xam ne moom la fa defe woon pour lu jëmale askanu Sénégal kanam pour lu alléger la souffrance des population du Sénégal ci loolu la demoon doxe ci loolu la jëm non non xam nga wax tayle tayle tayle c'est trop c'est trop dur c'est trop dur euh, awa tayle parce que boo xoolee li nga xam ne mooy train express régional boobu TER bi ngay wax tey ñu ngi am benn aéroport fële muy AIBD nu war a defar train boo xam ne bii da koy jógee fii jaar fi mu war a jaar ba booy dem foofu doo am benn jafe-jafe pour dem fa très rapidement donc il faut que nit ñi comprendre ne am réew dafa war a dem vers la modernité nous avons un président bu am une vision boo xam ne bii il veut que le Sénégal maanaam dem vers la modernité moo tax yii nit ñi di di di projet yi ngeen nit yi ngeen daawul dégg daawul ko gis loolu moom moo tax tey ñu am satisfaction bu toll ni président li muy def nit ñi gis nañ ci seen bopp ci li nga xam ne moom lay def maintenant par rapport ak euh, xaalis bi nga xam ne moom moom ngay wax nii xam nga xaalis bu buñ la joxul nga ngay ngay ñëw di wax naan jox nañ ma nangam te joxuñu ma ko yaakaar naa ne loolu loolu amul amul fen ko président Macky Sall dafa am problème bu mu am xam nga mooy lan c'est-à-dire c'est un président qui fait la confiance des bailleurs c'est-à-dire bailleurs yi dañu am dañu am confiance ci moom am ko ci Sénégal pourquoi parce que le Sénégal est un état euh, con enfin c'est un état qui bien géré la vérité c'est ça Sénégal est un pays qui bien géré ku fi ñëw pour di investir sa investissement dina ñoŋ parce que réew mi da y a un assainissement des finances publiques réel bu nga xam ne bii président la république ak gouvernement ñu ngi koy def ci réew mi xaalisu pasar pasar moo fi amatul dañu waxante dëgg xaalisu pasar pasar bi nga xam ne ñoom bi ngeen fi nekkee loolu moo xewoon mbumbaay gauche droite yéen bu ngeen wax ku ay mbumbaay sax man damay jaaxle alors que yéen c'était votre fort votre yéen seen loolu mais tey Abdoulaye ñëpp relaté ko tey ji te ñoom ñoo prôné woon li nga xamante ne moo di rupture itam est-ce que euh, du lënt xelu askan wi non xel askan wi amul xam nga lu tax parce que li ma lay wax nii c'est ça la vérité des faits tey réew mi dafa am ci ay contexte bu nga xam ne fi lañ ko jëlee fi lañ ko fekkoon indi ko ci contexte boo xam ne bii nit ñi ñu gis ne réew mi xam nga réew mu amul jafe-jafe amul fen réew mu amul jafe-jafe amul fen ci àdduna bi wax naa ko sànq ci démarrage bi wax ne même sene même dëkk yi nga xam ne c'est des pays développés aujourd'hui dañu am des problème réels si seen wàllu économie si seen ci fànn bu ne parce que àdduna bi moo bindoo noonu mais réew mi ñu ngi en tout cas di ko jéem a teg ci ay conditions yoo xam ne yi réew mi mu ngi jëm ci kanam liggéey bi mu ngi dox ci kanam pasar pasare alalu askan wi. mais liy yàq kanamu Sénégal itam bokk na ci comportement yi nga xamante ne ñu ngi koy yóbbu ca biti réew. waaw rawatina ñoo xamante ne ay kilifa la ñuy wuyoo. waaw non xam nga man euh, li xam mooy visite d'état du président Macky Sall li mu war a doxi doxi na ko maintenant dans le cadre. peut-être d'un parti politique ay nitam wala nit yeneen dinañ dinañ dinañ bëgg seen président ñëw dinañ bëgg seen président wu parti ñëw seet leen dinañ dinañ bëgg ci fànn yooyu peut-être dinañ dinañ def ay accueil xumbal pour pour pour pour pour accueillir seen seen responsable c'est dans ce contexte là mais jëluñu alalu askan bi di ko yóbbu France di ko fa pasar pasare non au contraire dañu dem foofu pour jële fa loo xam ne s'il vous dañ fa am loo xam bu ñu ko jëlee foofu dañ koy indi ci réew mi pour defar ko fi def ko fi régler problème yi sénégalais loolu moo leen tax a jóg. beneen bi beneen bi je vais terminer foofu mooy par rapport ak Alstom bi nga xam ne moom lañ dénk. Euh, euh, li nga xam ne mooy terre bi ñu war ko defar. xam nga problème bi nekkul ci société bi ñu ne dafa dafa demoon bëgg a daanoo daanuwul problème bi nekkul foofu. xam nga li ñu war a xalaat mooy usine boobu bu fekkente ne Sénégal moo am la possibilité. en tout cas de remettre en selle ba usine boobu du tëj mais c'est c'est c'est très bien mais par contre société yi ñuy wax naan fii société yi Macky Sall tëj Macky Sall tëjul benn société ñun dañu ñëw fekk yéen yéen a tëj société yëpp yéen yéen société yi ñuy wax ñoom ñoo ko tëj avant ñu fiy jóge ay ay Sotescak yi ngeen yooyu yëpp Africa Mer bi tëjoon te yooyu yëpp président Macky Sall ñu ngi koy dox di ko liggéey tey Africa Mer yooyu yëpp gars yi ñu ngi leen di delloosiwaat indiwaat leen jël en charge seen xaalis fay leen ko problème yi ngeen fi bàyyi woon eh, eh, ci waa dans le cadre du transport aérien gis nañ ne état bi bi mu ñëwee ñi nga xam ne dañu fa doon liggéey fay ko ñu Air Afrique ak yooyu yëpp dañ leen a di commencé di leen fay xaalis di leen jox li nga xam ne moom lañ amee woon mais fexe ba delloo si waat structure yi tëjoon peut-être mënuñu tijjandoo lépp à la fois mais ñu ngi xool ay anam boo nee premier ministre bi dafa bañ ne duñ tijji loolu loolu loolu lu wax parce que kuy kuy ku bëgg nga société buy fonctionner parce que mooy recruter ndaw ñi recruter nit ñi ñuy liggéey. soxna si xam nga nee na s'il vous plaît je termine c'est-à-dire quand vous parlez je vous laisse terminer laissez-moi terminer après vous prenez la parole moi je dis ne tey président la république ak premier ministre ñu ngi def liggéey boo xam liggéey mucc ayib la société yi ñu war a dindi tijji nag. dinañ def le maximum possible pour tijji leen yi nga xam ne ñu ngi nekk en cours pour ñu tijjee ko bari na am na yu baree bari di tijji nañ leen. réglé nañ problème yi ñu ngi continuer di réglé ay problème te problème yi ñu réglé yëpp yéen a ko fi teg c'est-à-dire société bi tëj si yéen lañ tëjee mm-hmm. ay problème la société bi nekk mbooroo di doon def affaire phosphate yeeg yooyu yëpp bi bi moo nekkoon fleuron de l' économie sénégalaise yéen a ko parce que yàq ba nga xam ne tey aujourd'hui one la là pour pour redresser si loolu lañ nekk yéen da ngeen ñu war di féliciter à tous tous les jours wala saa yu leen jullee ñaar julli ñaar raak ñaanal président Macky Sall que li ngeen fi bàyyi si njombe mu ngi koy defar donc loolu nag moo tax ñu fal leen yéen xam nga nee na usines yu bari ñun ñoo ko tëjoon te ñoom ñu ngi xool nañ leen leen ubbee loolu lañ doon gëmloo population Sénégal yi moo tax ñoom ñu gëm ko ñu fan leen kon tey nag li leen di ñaan mooy usines yooyee nga xam ni kon ñun ñoo ko tëjoon mais le plus rapidement possible ngeen jéem ko ubbi en tout cas soxna Awa dafa am lu nga xam ni c'est normal mu teey suñu xal affaire art turam boobu parce que déjà ñoom bi ñu defee seen appel d'offre ñoom bi ko bi ñoom ñi ko gagné nga xam ni cinq cent milliards et quelque lañ leen di fay Turquie les Turcs mhm. ñoom ils avaient proposé la moitié pour defar lu mel na ñoom li ñu mën a defar nii mais ñoom joxuñu leen ko joxuñu ko Turquie français yi lañ ko jox et puis à part loolu déjà xam nga loolu rek day teexel et à part loolu defe naa sénégalais yi li ñu gënoon a soxla li ñu gënoon a yàkkamti mooy ñu amoon autorail buy jóge dakaar jaar Thiès jaar Tivaouane romb Louga dem Saint-Louis autorail yuy dem gin ngi neew ba Linguère et cetera sénégalais yi monsieur Seck loolu la ñu soxla mais soxlawuñu alal ju day nii ñu pasar pasare ko ci diggante euh, diggante jam euh, ñaajo ba ba aéroport AIBD donc sénégalais yi soxlawuñu loolu loolu moo tax nag il faut nit ñi seen xel dafay ñaaw ci visite bi nga xam ni moom la Macky la doon def parce que à li ma doon wax sànq la programme de Macky Sall bi mu fa demee nga bal ma mais même gis nañ ko ci tale bi mu ni benn école bu ma doon jàngee la demoon alors école bi bi ñu wonee euh, journaliste bi mu ni y vingt ans ci ci gannaaw foofu la nekkoon man bi ma defee vingt ans bi ma ko calculer muy quatre-vingt-seize ça veut dire que quatre-vingt-seize kon foofu la Macky Sall nekkoon di jàng te mais sénégalais yu baree bare xamuñu ni Macky Sall mësuñu dégg ñu ni Macky Sall mës na nekk France di jàng loolu ñu bare bare fii Sénégal xamuñu ko mësuñu ko dégg bi ma woowee tey bi may ñëw un débat boo ciy dem da ngay préparé wu bi may woo. le le le doyen du PDS Ablaye fay ma ni ko yow 96 est-ce que réellement Macky Sall France la ne woon mais mun ma 96 Macky Sall man maa doon meeram fii ci Derklé sama koñ la dëkkoon 96 alors pourquoi ñuy créer yu mel noonu naan dafa demoon ci école bu mu doon jàngee en 96 fekk 96 fii ci Sénégal la ko fekk mais yooyu ban sens la am di nax sénégalais yi ci yu mel noonu en tout cas lu ma wax sànq. loolu moom laay répété waat mooy ñoom seen problème mooy xamuñu fan la ñuy taxaw léegi nag man li ma leen di ñaan lillahi wa rasulihi Macky Sall na seeti Ablaye Wade Ablaye Wade yedd ko Ablaye Wade jàngal ko déjà il a beaucoup appris ci Ablaye Wade mais tey accidentellement xëy na la jële réew mi on a tous compris mais moom la ko yàlla jox comme yàlla ci loxoom la ko teg doomu aadama mënu ci dara mais ñëpp xam nañ ni mënul dem mais na jéem a dem ci baayam baayam wan ko yoon Ablaye wadd ba ko Macky Sall gañee dafa ñëw wax ñu nit ñu nangeen ko ànd ak moom jàppale ko mais moom bu mu am gêne boobu na dem toog ak moom ni que nan laay yore réew mi fan lay jaar raktak Ablaye Wade wala yoon du ko jàngal Abdou Diouf ko koy jàngal non man euh, Awa Diop non bul yàq wax bi bul yàq waxtaan bi nag oui ma dama ni yàquma waxtaan bi dama ni Abdou Diouf kooku la ñuy bañ a dégg xam nga ñun ñoo dëkk ca Louga mais Sénégal Sénégal tardement bi mu gën a tardé tey c'est Abdou juuf exemple nag bu ñu koy joxee bëgguñu ngay tudd Abdou juuf parce que Abdou juuf livre-am bi mu bi mu bind di ci tagg Macky Sall livre-am bii mu bind di ci tagg Macky sàll dégg nañ ñun li mu wax ci Ablaye Wade te Abdou juuf gorewul parce que bu gore woon dana tagg Ablaye Wade parce que Abdou Diouf barki alquranul karim Ablaye Wade teraanga bu nekk defal na ko mais malheureusement il n'est pas sérieux mm. donc a Diop bul wax waxu Abdou juuf man sérieusement man Macky Sall moo ma gënal Abdou Diouf waaw mais dama gis rek ki nga xamante ne moom la jege loolu mu koy euh, xela da nga gis kan Macky Sall le président Macky Sall mu jege loolu Abdou Diouf waaw mais parce que Abdou Diouf moo moo nekk ni genre nit yooyu rek bu bu bu Macky Sall wàccoon léegi mu dem léegi ca këkë yi Abdou juuf ñëw na Louga sama kanam ya ya Kumba Dem bi mu gaañoo suma kanam man ma dem ci dëj bi Ablaye Wade toog Abdou Diouf di tagg ablay Wade ba da doon waaj jooy keroog naan ko gërëm naa la ba fa ma mën a yem ñëw nga fi ñaari fan nga tegale ko di ñëw Ablaye Wade premier jour ba dafa dem bañ koy denc Ablaye abdu Diouf mu ni Ablaye Wade yow sax yaa ma fi jiitu Ablaye Wade sax moo ko jiitu ca dëj ba. ak Abdou juuf amul lu muy fayee Ablaye wàdd tey lu dul lii mais amul problème. Euh, tey euh, Abdou Aziz ñu ñëw ci beneen point gis nañu ne CREI yi da doon ne la waaye jamono yi dafa mel ni dañ koo tàmbali nag di yeewaat. Mhm. Euh, ndax askan wi joxati nañu gëdd googu kuréel googu gannaaw ba nga xamante ne gis nañu yi ci mujj am yépp ak yi ci mujj tukkee yépp ñi ñu ca doon topp ak fa ñu mujjoo. waaw xam nga peut-être dinaa tontu sa question mais dafa am. waaw mais euh, li nga xam ne moom la Gallo wax nii xam nga franchement parler euh, le président Abdou Diouf yor na Sénégal ba jóge fi xam nga Sénégal ay étape la parce que président Senghor moo fi nekkoon créer la nation sénégalaise ak ay ay institutions qui fonctionnent Abdou Diouf bi mu ñëwee. def na li mu war a def renforcer la démocratie Ablaye Wade bi mu ñëwee yokk na li mu mën a yokk dem président Macky Sall ñëw xam nga boo nee euh, président Macky Sall dafa war a dem si Ablaye Wade muy baayam la maamam la pour mu jàngal ko c'est-à-dire tolluñu foofu un état c'est du sérieux aujourd'hui dans l'appellation on parle de père de la nation Macky Sall tey moo jaboote Ablaye Wade kon te Ablaye Macky Sall bi mu jaaree ci gouvernement ci Ablaye Wade en tout cas ci tànkam yi mu yar ko comme ni ngeen ko waxee en tout cas nekkul woon un mauvais élève dans la mesure où président de la république de l'époque Abdoulaye Wade bu doon vanté wu réalisation moo ko wax ci Sénégal ñëpp di dégg depuis bi Macky Sall ñëwee nekk sans premier ministre si la mes grands projet sorte de terre c'est avec lui que le Sénégal gis ne pour réalisation yi Macky Wade soxloon génn ko loolu Abdoulaye Wade moo ko wax kon Macky a été un très bon élève maintenant que Macky Sall euh, dem na euh, France jàngi demul France jàngi euh, jàng fii fii la fii la yem le problème c'est pas ça ça ça loolu amul benn sens parce que li am solo mooy li am solo xam nga mooy lan mooy jàng am xam-xam et jàng na ba nekk un ingénieur loolu mooy mooy xam-xam bi. léegi nekk je termine. nekk en 96 uh-huh. mais en 96 même en 2000 nit mën na dem jàngi tey mën nga dem ba am 40 ans dem jàngi parce que jàng du wees moment yi mu demee fii man je connais beaucoup de responsables fii Sénégal ñuy wax ne dañu jàngi nañ en France en nangam sànq kañ lañ fa dem. yan lañ ban moment lañ fa dem defi seen i master defi seen i nangam defi nangam kañ la. loolu loolu du jeex fii am na ku ne foo dem jàng fa xam moo xam la nga jàng lan la mais problème bi nekkul ah. foofu ndax jàng na wala jàng na France wala jàngewul France non ñun nekkuñu ci air boobu mais li am solo au moins le mérite de lui même si su demul France mooy ci réew mi lañu ko tàggate mu jànge fi di def ay résultats xeex dox rayante ba gañe réew mi téye ko ci tey wér ñu ñem. mais ñëwal ci question rapidement euh, ci li ma wax léegi gis nañu ne créé da doon nelaw waaye tàmbale nañ koo yee jamono ji ndax askan wi li ni mel itam euh, du tey seenu xel gannaaw gis nañu ne ba mu yeewoo woon itam li ca mujjee tukkee tey jii ñu juga jugalaat ko. waaw xam nga xam nga CREI yi liggéey bi nga xam ne moom moom lay def yaakaar naa ne ñun en sénégalais bu ne da ko war a rafetlu rafetlu mooy. bi président ñëwee dafa indi ce qu'on appelle la bonne gouvernance moo tax ñu jël créé boobu teg ko pour ñi nga xam ne dañu dañu war a jël alalu réew mi di ko pasar pasaree wala di ko lekk ñoom bàyyi askan bi loolu jeex fi loolu moom moo tax ñu indi créé pour ñu xool parce que am na alal yoo xam ne parce que en fait Sénégal ngay gis Sénégal ngay gis koo xam ne kii nekkul un un industriel nekkul un industriel yore ay usine ay société di liggéey ñu ne kii day am na ay milliards ça se comprend mais ay ay ay ay ministre de la république ñu am ay milliards. mais euh, Abdoulaye ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu. ñooñu Abdoul Aziz fànn boobu ñu ñekku mais ci mujjantal bi ndax gis nañ fi ñoo xam te ne dañ leen toppoon ba ca cappaandaw ga mu naax saay. non da dara naax saayu fi. la preuve la dara naax saayu fi ñi def ba nu jàpp leen wax leen gëstu xool. ba gis ne def nañu am na ñoo xam loolu gis nañ fi ñu jaar ak ñoom am na ñoo xam ne ñi aussi ba ba ñu leen waxee ne fi ngeen war a nangam ak nangam am na ñoo xam ne transigé nañ ci suuf fay. ñi daw làqu nag la la vérité c'est ça beneen bi stop en parlant euh, de de seen euh, seen seen candidat. mais ñi daw làqu moom si boppam. ñi daw làqu li mu li mu mu jëloon ñi daw làqu nag. non fi anak daw làqu.

le président Macky Sall wax na lu leer protégé wul ma Samba protégé wul ma Demba nit nag yéen d'accord ngeen ne Sénégal c'est un pays de liberté c'est un pays de liberté les gens sont libre de faire leur choix c'est-à-dire aujourd'hui su ku mu ne tu la neexee nga ne man damay dem militer ji APR am nga ci droit. comme waaye li la toppoon non attends am nga ci droit mais ñëw APR ñëw APR militer fa bu fekkee ne ci traînes des casseroles. buy yoon waree dal si sa kaw day dal sa kaw. dinañ ñëwaat ci point boobu euh, tey ji euh, Amadou Gallo gis nañu CREI euh, yeewaat na tey ndax am nga yaakaar ne liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy xaar ci ñoom dinañ ko def bii pa bu mu mucc ayib. waaw man CREI sérieusement aw ma yaakaar ci li nga wax parce que au départ ñu ni ci jëkkoon a arrêté li ñu doon def lu ci bare bare bare bare ay nitu PDS moo leen intéressé woon. ñii ñu jël leen jàpp leen ñii ñu jël leen. Mhm. di leen def enquête ba ci yàgg ñoom ñu dem rallier le camp du pouvoir ku mel na Ousmane Ngom donc ñu jaar fa bàyyi leen mais en tout cas ñun seetlu nañ ni ñi nu gënoon a gis te ñoom xam nañ ni ñooñu ci ñi leen gënoon a jaaxal ci lañ bokkoon. mu doon ku mel na Karim ay Aïda ak Aïda jong finalement ils ont été libérés libération ba nan la demee parce que kii dégg naa ko léegi mu mel na luy wax transiger mais Karim Wade n'a jamais transigé te même ayda jong am naa yaakaar ni transigé wul tamit ki ma gën a leer nag mooy Karim Wade donc Karim Wade n'a jamais transigé ce qui s'est passé mooy dañ ko jàpp arbitrairement ONU yéen ñëpp gis ngeen ONU ñu xëy suba wax Sénégal wax Macky Sall pour mu bàyyi ko par force sans condition ba pare ñu fay ko ndàmpaay mais Macky Sall bañ dëgëranteeg ñoom bopp ba xëy suba kenn xamul nu mu demee soo ko koy libéré moo tax aujourd'hui aujourd'hui avec le problème de la Gambie ak problème mu Israël mhm. d'accord d'accord naa ni Macky Sall position bi mu mujj am parce que au dé au au début moom dafa doon masse bu tayee mu wax lii bu ëllëgee mu wax la leen quoi comprendre nga mhm. alors man je l'avais compris dafa xawoon a ragal. parce que au début ah mais bi Paa naka wane na carrément ne mooy suñu njiitu réew. non au début prise de position sur la crise israélo-palestinienne le ministre des affaires étrangères moom moo jëkk wax bi mu waxee il a menacé la Gambie bi mu waxee menacé la Gambie le rebelle là qui est en France Kourouma Kourouma wax ñu ni ñu gouvernement mu génne un communiqué comme ni Sénégal génne woon communiqué menacé. menacé la Gambie Kourouma Sané génne communiqué wax Macky Sall ni ka sa yoon newul ci problème mu Gambie. Ah, na nga ci nag. yoonam mi ngi ci non dama lay wax rek man man du du du kooku li muy wax la. non dama lay man tam dama lay wax ne est-ce que bi paa nag suñu njiitu réew wanewul carrément. ne njiitu réew am na sañ-sañu yenn def yenn yi. fi ngay wax fa laay terminer ndax ci wàllu crise israélo-palestinienne bi wane na ci lay déglu pour nga uh-huh. comprendre fi ma jëm. foofu laay teere ji. Mm-hmm. donc dama lay expliquer rek ni mu demee au début donc bi affaire ministère des affaires étrangères waxee. Kourouma Sané def communiqué boobu à la suite donc bi mu menacé Macky Sall booy seetlu dafa xaw a dellu gannaaw naan Yaya Jammeh c'est mon frère xaw ma lan ak lan dafa xaw a dellu gannaaw tuuti ba ci yàgg mu xëyaat un jour def benn def benn entretien ci ci télévision vingt France 24 mu fay wax yu kenn xamul dellu si waat fit bi ñëwaat comprendre nga finalement finalement man li may wax mooy. li mu mujj wax loolu mooy yoon war nañ wax ci affaire u Gambie proposition bi ñu am ci Israël Israël li muy def Palestine d'accord naa ni jaaduwul mm-hmm. mais soxna Awa Macky Sall est mal placé pour wax loolu nag lu tax war a wax loolu c'est pas lui kii may jàkkaar loolu nii bu ko waxee ma ni ko waaw parce que Macky Sall CEDEAO li ñu décidé ci Gambie wax ni incha allahu rabbi y'aura l'investiture de Barrot le 19 et daanu jël toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa sécurité wax Yaya Jammeh ni que na nga dem c'est c'est CEDEAO li ñu wax noonu mais wax nañ mais génne woon nañ fi benn kii ah benn arrêt sant ko Macky Sall Macky Sall bañ bi ñu bi ñu waxee bi Ablaye Wade daanoo en 2012 Macky Sall tere voyager Omar Sarr tere voyager Karim Wade Samuel Sarr Madické Niang et cetera mais mais CEDEAO dañ génn benn arrêt yow loolu tu te rappelles bien wax Macky Sall mais mu bañ ni duñ fi génn Karim Wade bi ONU génnee un avis wax ni nañ ko bàyyi mais dafa bañ pour pourquoi kon moom moom moom moom mu bañoon lay bëgg nangu lii loolu moo tax nag ñu ni ko ki ci war a wax dëgg li ñu wax sérieusement c'est vrai ah d'accord naa ñu ñu dugg ci problème mu Gambie régler ko. Yaya Jammeh jël ko. d'accord nañu Israël joxe joxe teeru jaamur yi ñu jël. Mhm. mais celui qui doit le dire c'est pas Macky Sall parce que il a fait la même chose dafa et et et d'ailleurs xanaa xamoon ne Yaya Jammeh Yaya am na benn instant dafa xaw a toppandoo Macky Sall ci wax waxet xam nga dafa jëkk d'accord ni waaw damay dem. ca semaine ba rek mu ni dematuma mais c'est parce que da xam naa ñàkkul ni wax na loolu après mu ni non Sénégal fii la nekk ah Macky def na fi lu mel noonu donc kon ñoom amuñu lu ñuy wax Macky Sall. Euh, tey euh, Abdou Aziz euh, Amadou Gallo Ndiaye dafa sàqami sama lanc ndax ci point boobu laa naroon ñëw. mu jëm ci position wu Sénégal ci problème mu israélo-palestinien bi mm. euh, tey ji wane nañu ne carrément état lañu wane nañu suñu position suñu taxawaay itam waaye ñu jàppane dafa am lu ko sous-entendre. c'est pas bien compris sous-entendre quoi. dafa am euh, yoo xamante ne ay pression yoo xamante ne daal dafa am ñu koy def ci suñu njiit yi pour ñu mën a jël yenn réaction yi mais jëlul ñu ko si seen propre chef. ok Eh, soxna wa xam nga honorable galo dafa wax ne bi muy ñëw dafa dafa dafa maanaam dafa gëstu maanaam pour xam waxtaan bi liñ ko wax ne loolu la ñuy waxtaane mu gëstu si dem na jël ay leçon si ñi nga xam ne ñooy njiitu partem en l'occurrence ñu mel ni ay Ablaye Faye que nous bien ñu jox ko ay leçon mais nafar bi des na parce que am na loo xam ne euh, bu ma nee nafar bi des na xam nga mooy lan dafa am loo xam ne lii euh, boo koy boo koy wax da danga ko war a wax ak ay firnde yu leer xam nga président Macky Sall amul lu muy lu muy lu muy def ngeen gis ne sous pression la ko defe walla la ko jëfe xam nga dëgg moom la yàlla bëgg position bi Sénégal jël par rapport ak le conseil de sécurité de l'ONU concernant l'Israël décision bi nga xam ne moom la président la république jël ak courage bi ñu am pour jël taxawaay bi moom la ñu doon séentu en tout cas si ñoom pourquoi Sénégal du réew mu mag du réew moo xam ne nii réew mu riche la mais réew la moo xam ne fii sur le plan de la diplomatie vraiment ñu ngi def li ñu war a def loolu moo tax tey ñu am sa poste de non permanent fële au niveau de de de l'ONU taxawaay bi mu war a taxaw moom la ñu taxaw et je pense que déglu nañ Mimi Touré muy wax par rapport ak la décision de l'Israël de de maanaam rappeler son ambassade et tout ça et après parce que le Sénégal est un pays souverain mais avec l'ère du président Macky Sall dañuy jël décision yi nga xam ne moom lañu ñu a jël concernant en tout cas la nation ci ci an fanam ñu ngi ko war a jëlee yëpp ba mu mat. politique étrangère bi kon amul kenn ku koy dicté. Euh, la politique étrangère du Sénégal président de la République moo koy déterminer def ko dénk son ministre des affaires étrangères monsieur Mankeur Ndiaye qui abat un travail extraordinaire au niveau des affaires étrangères ñu ngi siy def liggéey bu bu mucc ay nit ñi di ko gis di ko teg seen bët le Sénégal aujourd'hui sur le plan de la diplomatie xam nañ ne Sénégal mu ngi def ay jéego. wane na souveraineté am daal wane na ko ci fànn bu ne. Mm-hmm. maintenant par rapport à la Gambie euh, xam nga dire que Macky Sall euh, Yaya Jammeh dafa toppandoo Macky def wax waxee ça vraiment c' est enfin c' trop léger quoi pourquoi parce que Yaya Jammeh dama leen jàpp dama jàpp Gambie comme Sénégal pourquoi parce que la Gambie et le Sénégal c'est un même peuple un nous avons un nous avons les maanaam Sénégal Gambie ñu ngi ci biir Sénégal. Mm. c'est-à-dire lépp lu nga xam ne day dal Gambie le Sénégal ne peut pas étranger à ça mais quand le président Jammeh a été en tout cas vaincu par euh, Barrow lors de la présidentielle passée mais moom moo moo reconnaître sans pression aucune que ne gagné nañ ko woo. Baro félicité ko waxtaan ak moom kaf ak moom mais ñu jàpp loolu mais lan lañ bëgg. revirement bi am ñu ne ñu dem jaam jaam ne delluwaat ne moom ñu ko élection yi normalul dañ koy reprendre alors que moom moom moo organisé ay élection bi c'est Jammeh qui a organisé les élections ba ñu gañe ko kon li nga xam ne moo fi nekk li taxawaay bi Mankeur Ndiaye taxawoon wax ko président Macky Sall taxaw wax ko. position boobu mooy position bi nga xam ne moom la Sénégal war a téye parce que Gambie aussi du ñu bàyyi Gambie mu dugg ci ay ay loo xam ne ni ëllëg. day éclabousser Sénégal. voilà kenn xamul fu mu jëm. Mhm. parce que Gambie bu amee problème. Mhm. Sénégal day am problème. soxna Awa dañu war a fexe ba Gambie ñu protéger ko comme ni ñuy protéger Sénégal je ne suis pas je euh, dàquma nag ñu organiser Yaya Jammeh mu génn ci jàmm ñu jël pouvoir bi jox ko ñi ñu ko war a jox. ba nga xam ne du am effusion. en tout cas soxna Awa Diop. guerre bëgguñu ko loolu mooy li nga xam ne je termine après vous prenez loolu mooy li nga xam ne man loolu laa gis ne loolu la ñu war a def un état responsable noonu lay def position de fermeté mais ak réflexion. bu mu war a àndal. soxna Awa yaakaar naa ne président. donc guerre noonu la taxawee guerre bëgguñu ko. Mhm. ñii li ñuy wax dafa mel na dañu yàkkamti guerre am et puis ñoom ils commettent beaucoup d'erreurs. un homme d'État y a des choses yu nga xam ni soxna Awa kenn du ko wax ci rajo kenn du dem ci ay télévision di ko fa wax comprendre nga. Mhm. te ñii malheureusement malheureusement ils commettent beaucoup d'erreurs j'ai vu le ministre des forces armées dem à la télévision mais am na yu nga xam ni même boo ko décidé soxlawul nga koy wax nit ñi di ko dégg demal nga def li ngay def point final mu jeex. dégg naa ko muy wax naan on on attend que la signal de la CEDEAO on est prêt hein mais yooyu ça ne se dit pas. de communication bu ñu la étaler sur la place publique. yooyu on a entendu euh, euh, aminat Touré dire tant pis xaw ma à benn ñaani ñett ya xaw ma mu ko tuddee. Benyamin Netanyahu. alors dama ni yooyu yëpp c'est des erreurs dafa bare lu nga xam ni doomu aadama wax ju bare baaxul am na lu nga xam ni kenn du ko wax. Mhm. léegi waxtu bi mi ngi ñuy xocc en 30 secondes rek euh, bu ci nekk dafa am benn question goo xamante ne tey jii euh, dinaa ko laaj amadu Gallo njaay mi ngi aju ci euh, gis nañu lu aju si seen doxalinu parti gis nañu ne kii di Soxna Aïda Mbodj génn ne soo leen amul ambition ngeen jiital ko moom mu dem te maa ngi dégg itam ñu naan seen day ñëw le tey lan moo ci seen lan moo ci seen taxaw. suñu ñëw candidat effectivement liir naa ko ci presse bi tey wala démb wala bërkaati démb. mais sérieusement awa man euh, fi ma toll ci PDS man maanaam man du ma basé wu ci lu journal di bind man dafa bari décision yu tey je suis membre de toutes les instances du PDS kon bari na yu nga xam ni bu ñu koy jël yàlla may na ma ba danaa fekke fa ñu koy jële wala fa ñu koy waxtaane wala même bu ma ca bokkul dana am ñu ca bokk ñu mën kon du ñëw donc affaire Karim bi mën na am dëgg la mais man sérieusement yëguma ko te man lu ma yëgul nag du ma nekk di laajte sax. mais Aïda Mbodj ñu taxaw ne leen euh, bu fekkee ne amu leen ambition ngeen jiital ko ndax gis nañ ne jamono ji PDS day yokk ko. non xam nga pour pour ce problème man en ce ma me concerne man bu fekkee man maa moom wax ji man Gallo Ndiaye bu dee man maa moom wax ji ma xam ni dama koy delloo ci Ablaye Wade ñun nous sommes des wadistes ablaay wàdd la ñu àndal gis nga Ablaye Wade barki alquranu karim bu doon dafay buy dem bu nee mouchoir bii laa fi teg topp leen ci gannaawam ci gannaaw mouchoir bii laa kon man. est-ce que du ñàkk ambition bi Aly Mbodj di wax. dama ni taw taxaw na. dama lu ñuy wax rek nañu dem wax ko Ablaye Wade bu Ablaye waxee ni amatuñu ambition. mais tey est-ce na yéen tey ji yéen war a wane seen taxawaay. non Ablaye Wade. est eh, soxna Aïda Mbodj di wax. mais mi ngi fi dara jotu ko. macha allah macha allah Ablaye Wade Awa Ablaye wadd ku ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg da nga war xam ni gëm ni ab Ablaye wadd yàlla moo ko may Ablaye Wade macha allah dañ koy ñaanal yàlla mu dund lu raw la baayam Mor Talla wadd dundoon papa Ablaye Wade dund na 116 ans gis nga 116 ans yi mu dund Ablaye wadd mës nay nettali nee na sama papa bi muy jógee àdduna boo ko gisee dooni am na 116 ans. Mm-hmm. moom yàlla moo may yàlla moo leen may loolu wàllu baayam. gis nga Kébémer. kon jeex na dinañ ñëwaat euh, ci généalogie wu ki nga xamante ne. waaw loolu laa bëgg nag ñu ñëw ci benn moo di Abdoulaye Wade. ma wax la Abdoulaye Wade ah, waa kër baayam nan na leen yàlla borom. bi maye ba tax na ñun xaaja gu ñu xalaat ni Abdoulaye Wade jeexal na. jërëjëf xaaja gu ñu xalaat loolu. jërëjëf jërëjëf euh, Amadou euh, Gallo Ndiaye tey Abdou Aziz Seck tey jii. ñëwub Karim Wade ñu ngi koy lam-laamee sur la place publique est-ce que du effrayer un peu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les apéristes rawatina ki nga xamante ne moom mooy jiitu réew mi <laughs> non ça me fait rire d'ailleurs euh, ça me fait rire dans la mesure sànq Gallo bi muy développé ci affaire. en 30 secondes rek wax waaw en 30 secondes am loo xam ne waxu ko parce que en parlant dafa day wax comme si Karim Wade dañ ko téye nii après libéré ko nangam sangam non Karim Wade dañ ko accusé indi ay preuve di ko jugé au Sénégal ba ñu condamné ko ñu jàpp ko ci kaso bi tëj ko président Macky Sall loolu nag prérogative président de la république la c'est son pouvoir discrétionnaire moo am possibilité gracier qui il veut mu gra léegi mais ñëw mu gracier Karim Wade mu génn mais Karim Wade da dañu y une condamnation qui pèse sur moom parce que amnistie wuñu ko dañ ko gracier kon aujourd'hui si vous dites que Karim Wade mooy candidat wu PDS à l' présidentielle cest dire man en moment laa damay jaaxle quoi sa à dire il faut que aussi que vous soyez réaliste et conséquent avec vous même leen son retour non mais man man man bokk man laa wax de mi gën a tuuti ci APR yëgaluma yëgalu defuma ko si sax kaa beneen bi mooy pour terminer par rapport ak li nga xam ne moom moom nga wax léegi mooy Sénégal réew mi réewu jàmm la réewu jàmm jërëjëf euh, Abdou Aziz Seck pare ci APR ñuy jaajëfal bu baax itam Amadou euh, Gallo Ndiaye di jaajëfal euh, sama coordonnateur di Oustaz Assane Diouf di jaajëfal maam Sidi jóg sama bay Fall ak Cheikh Tidiane Diop ñi pare woon ci technique bi di jaajëfal Ndella Amar ci côté esthétique bi ma leen di jaajëfal yéen ñi sa foleeru jamono wal fajri dig daje àllarba bi di ñëw bu soobee suñu borom ci beneen numéro Senebe yoon jàmmat ak Rapakat, rapakat, yeah.